asalaamaaleykum suma mbokk gambien ni man len di nuyu sen tour ak sen santa man la sen sent sen xarit am Usman Kamara. am ñu xamé ma si Keesful os tay nak dama len isil am suñ programme bu ñuy am sa suné am am waaleykum salam. Santa yalla jaama rek ñuy am comme numa ma wax rek sen programme bu ñuy am sa suné muy di Gambia after work tey nag am ñu ànd si ak seen BNVIP magazine bu nga xamante ni dañ leen ko di amal saasu ne si week bi tey Mor lamin yow leen ñëw seet si tey am ñu ngi leen a sant di la gërëm si dalal boo ñu dalal tey yéen ak am principal bi am di kontaan si loolu trop tey seen BNVIP magasine ñoo leen ñëw seet si si seen programme bu ñuy am saa ne muy di Gambia After Work tey li soxla nag mooy comme Gambien bi am normally comme after work nu moo doxalee life am comme kër ndaxte dañ gis ne am léegoo léeg after work da ngay gis ne ñii di dañoo nekk di xam nga suñ demee kër xam nga ay different atti naka a a living nañ dee def naka la comme lu ma bëgg a wax mooy am suñ demee kër ay different waaw si looy yëngu comme ñii dañuy ñëw soona xam nga ñëw dem seen jabar yi defal leen lii wala comme bacilo yu mel ni man. ah non waa bacilo yu mel ni man. ak kon bacilo nga ko mel ni ñun. waa ok am ñëw ñii dañuy tëbu dem lekka sangu dem toog jabar bi defal leen ataayaak yu demee noonu. waaye tey after work bi moom comme luñ la bëgg a laajte mooy comme yow nooy doxalee sa after work. waaw jërëjëf ah, suma mbokk kontaan naa si question bi nga laajte nii man maa ngi tudd Modou Lamine Sow ah, di jàngale fii. naa ne euh, bamtuwaat la rek bourse bi Opan senior secondary school waaw suma question bi nga ma laajte daal kontaan naa ci trop te di ko sant yàlla bu baax waaw man daal euh, lu ma min di def mooy saa yu ma wàccee school man a ma aw ma time noppale su dul time bi nga xamante ne sa lay tëdd di nelaw léegi nii close nañ classe morning shift bi euh, sorry morning shift bi jeex na. Ah, xalé ñu ngi ñu fali di am study ñu ngi study ak ah, ben teacher bu ñu wax Mr Minte science lañu def ak mom bu démé bé bori euh ah, fo jot ma connect so suma connecté ma ngi close 6 ma close 6 dem kër am relax bu ndaw duma nan ataya nak waaw duma nan ataya duma tuk waaye dina tok rek am jalo jël air touti dan dina am xalé yeneen nga xam dañ lay joggé si different xam nga place yu bari lañu joggé di ñew bu ñëwee ma bolé len study len be let's say 820 ma génn a dem am beneen classe bi nga xamante ne yi xale laa nekk di jàngal ñooñu seen biir kër laa leen nekk di jàngal waaw suma affaire yi daal noonu laa koy doxalee daal. waaw nu nga ko defee comme yow am euh, damay dellu gannaaw tuuti si sa biir wax. nga ne am doy am noppaleku. comme euh, lu may laajte mooy comme ban jën kay ni jànkuwante ngay am ak xale yi nga xamante ni moom ngay ticc. ndax gis nañ léegoo léeg comme classe yi nu moo mel. ak comme student moom nu mel because ñun ñëpp am nga once mus nañoo doon ay student. waaw uh, kontaan na si question boobu non nga laccé ma bu baax xam nga bolé init du lu yomb té du lu neexit uh, dajalé yi doomi adama di nga dajalé doomi adama nga xamante bokkuñ xam nga ñi nii lañ mel ñi wéx ñi ñuul ñi bulo ñi werta uh, waaye yow loy def rek yow bis euh yow ticha bis si yow yaay xam naka ngaay ak ñom yene saa dina dal i tolof tolof sama xolé man xalé la waye dina am ño xamantene nyom sax ñom ñoma mak yor sikiñ waye soo leen jangal yow yaay am xel rek xam ne xalé lañ yow mak nga. ndax ndaxte jangalé neexul. wa jangalé mom du lu neex te légui jangalé bu ñek ni jangalé bu metti la bak internet bank internet bank fi xale yaa ngi make research mën nga li sa nga ne li ñu ne la du dulu motax da ngay préparer so bañé tolof tolof yu bari dal la da ngay préparer wa man mom suma tolof tolof bari wut yépp because soriwuma school bi suma kër mu ngi bor bi rek soriwut su doon ne keneen la mën naa wax ne mu ngi jankante like mu ngi jànkuwanteeg uh, problème jafe-jafe yu bari am moto fani, trafic bi neexut ànd like waaye man damay dox rek ñëw dugg jàngale toog tuuti study leen delluwaat kër gaa ñëw mu am ñu ñëw ma study leen. waaw loolu dëgg la am comme uh, loo nekk di wax léegi wax nañ ko fi mooy comme jàngale neexut. am ba tax na soo wàccee comme am pour yow ndax bokkuloo si ñu nga am after work bi da ngay egsi rek ak sonnaay booy sonna rek commencé di pamti pamti gars am nga rek doomi bàjjani wala yaay dama bëgg a nangam ak nangam bokk na ci bokk because ndax am ñeneen ñi ñoom comme suñ ñëwee hmm. ñii dañoo njëkkee dem leka comme lu fi wax sànq si gannaaw am ñii bala ñuy sangu sax dañoo leka comme si kunda ye tuure kunda yi yaa ngi gis so ndax yow bokkuloo si ñu mel noonu am nga so dëgg rek dëgg rek neex ba wacce di bisi si buntu kër bi lay commencé di yuuxu ndox mu sedd gay dem utal ma ndox mu am na ma nek ñu wax euh, kër yi anti ñima santa wa sante bi nañ ko gi rek. wa waxal rek wa wa baax na sant Sow laa sant. wa wa Sow laa sant sopp lo jëri mu ñaata ci padam wa suma ma agsee wax xalé ñu demal ma ci kër ñum anti ñima ma ci ndox mu sedd ma naan bu ma naanee res tuuti duma ma rek lek ñun nak man mom dama utee nit ñi. su ma toogee noppaleku ba si kanam den ci laay lekk lekk bi sax du ma mën a lekk lekk boobu noonu lekk bu baax ma mën a lekk laay lu bëri noonu su ma lekkee euh, time boobu laay am su ma joti mobile bi téye suma mobile bi léegoo léegi comme message yeeg yeneen yi ma reply ko den di noppaleku waale su nekkee nelaw fekk na ma ci nag ma nelaw bu nekkee ne fekkul ma ci ma toogee tuuti ma sangu sangu day tombe xale yeneen saa ñu ngi may xaar waaw loolu moom dégg nañ ko am comme ah, jërëjëf rek la yoo la jox eh, comme sa kàddu ah, bu bu mujjanteel comme looy joxe as comme like closing remark. waaw man lu ma joxe closing remark rek mooy di leen sant yéen eh, waa naka la di sax TV bi nu mu tuddati. Ah, Senbiance VIP ok ok bien eh, VIP magazine di leen sant di leen gërëm si lu ngeen def nii waaw yombul nag muñ rek moo am solo li nga def ni baxna trop di dem di seeti nit ñi si li ñoy liggéey li ñu yëngu pour bu ko won ak seen bi won leen ne nit ñi li la ñooy den uh, su fa passé ma gërem principal bi ak képp ki nga yang ya nga ngi bourse bi OPA and senior secondary school nga don ci teacher nga don uh, student mang ngi lay gërem di la sante si ñom tamit liggéey bu baax bu gay nek di def ni spécial principal bi neka principal boot senior ak junior du lu yomb mooy mista jaata Peter O Diatta so di di ko ci gërëm di ko ci sant ak grand bu ñu may nii tamit ñu mun a waxtaan yéen it di leen wax ne góorgóorlu leen yàlla baax na. waaw jërëjëf ñun tamit ñu ngi koo am wax tànk am mooy Mr jaata kooku noonu am comme jërëjëf moom Lamine. waaw am kontaan nañ trop am ñun waa Senbiance VIP magazine. am comme ñun dégg nañ am moom Lamine comme after work am comme nu mu ko doxalee am because after work am moom am jafewut comme ñeneen ñi. comme Touré Kounda yi ak Cissé Kounda yi su lu ma bëgg mooy ngeen teg seen baaram ñoog yéen la am ba faw soo teg leen seen baaram waaw ba tey ñoo yéen rek la am ànd ak ah, Senbiance VIP magazine am gannaaw bu ñu jógee fële bourse bi am euh, senior and secondary am tey dañ ñëw seet si benn mag fii nii tamit xam am ne am mécanique la. amé fini nii ay moto yi nga xamanteni mu ko defal ñu xamé ko si Fita garage kon luma def moy ànd ak suma jinné yi duggu dem séti am euh, borom place bi. Assalamualaikum. asalaamaaleykum. bro na def. yaa ngi fay la waa seen BN VIP magazine am ñoo la seet si seen programme bu ñoo def am every week am ñu xamee ko di Gambia after work am di Gambia after lu miin mooy comme am soo wàccee liggéey am lan ak lan ngay def kër am bi dafa am saa su ne comme ñoom luñ dee noomal di def mooy comme dañ luñ dee def as habit comme suñu wàccee liggéey am ñii dañuy dem am nga njakalante dem lekka am suñ paree ñii di xam nga naankati caen yi teg comme dañ dee arañ daal comme wala comme nuñ dee defee seen am nga lifin bi comme normally yooyu lañ di gën a def comme seen gambi after work bi hmm. am soo tey am ah, seen biyen ñëw seet si la pour nga wax ñu comme yow nooy doxalee sa after work comme soo wàccee lan ak lan ngay def kër waaw maa ngi leen di leen sant rek waaw fay nañ la waaw waaw waa ñu moom suñu wàccee liggéey moom waaw jaar si marse bi xam nga jëndal xale yu sew yi nii waaw seen nit si nga jëndal leen waaw du dee yomba nag waaye nag ko dee jiyee nga xam nga waaw nga jëndal leen seen nit si dem si kër gi jënd ataaya sukur pour famille bi ñoom dañoo am life si yow xam nga soo wàccee liggéey xam toog ak ñoom xam nga bégal leen ñoom tamit daal xam nga jëndal leen seen lekkay di lay waxtaanal kii ma am ataaya ak ñoom xam nga waaw ba waxtu tëddi leen tëddi waaw noonu la. comme sa biir wax am luñ si jàng mooy am borom kër bu am nga bëgg a nga am euh, because lu normally comme Gambien si ñoom mm. luñ dee gën a def mooy comme loo wax léegi nii am lu bëri comme nit ki wàcca dem kër wala moo egg kër kay jaar si marché wala si bitik jëndal ay njabootam ay daraak yooyu noonu waaye comme sa biir wax am jàngat si nañ ne am comme nit ku bugg a lifinam la am familiem la comme waaw njaboot xam nga comme bugg nga sa njaboot daal waaw leneen mooy comme am fiita bii nii ndax yow yaay fi boos comme naka garage bi yow yaay fi boos yow yaa fi boos ay borom place bi waaw comme lan ak lan nga dee ah, jàkkuwante ah, si customer si because nit ki léegoo léeg da ngaa gis ne comme isi ay moto xam nga nga ne ko lii moo lifin xam nga mu foog xam nga because ñun xam nañ Gambien bi Gambien lañ so lan naka nga ak naka nga dee def yow ak sa customer si waaw waaw bëri na jafe nag jafe-jafe bi du dee jeex moom daanaka every day soo eewoo yaa jafe waaye xam nga mbir mi moom muñ la rek waaw waaye nag métti na daal léegoo di nga liggéeyal koo xam ne neex naa liggéeyal léegoo di nga liggéeyal koo xam ne xam nga mooy loolu neexut a liggéeyal because of lépp loo koy defar rek bugg na koy fekkee wala lépp looy jënd rek da ngeen di ànda mu dem jëndi bagage yi ngeen ñëw waaye tamit pour ñu fay la xaalis tamit loolu daf dee jafe mun ngaa liggéey fii borom génnee ay twenty thirty thousand def ko si motoom bi waaye yow pour benn thousand dollars sa pour ñu fay la ko daf dee jafe dina dafa métti waaw waaye tamit. yooyu ñoo si nekk jafe-jafe daal waaw waaye liggéey bi daal moom métti na daal affaire yi moom xam nga yëfi góor la rek da ngaa nangoo liggéey daal muñ waaye daal bëri na jafe-jafe torop as si client yi sax dafa bëri jafe-jafe because of yi dañ bëri nit ñoo xam ne dañ bëri ay jikko am na ñoo xam ne dañuy ñëwee jikko bii ñuy ñëwee jikko bale waaye sant yàlla daal yàlla mu ñu see suturaal daal ñu ngi mun a manaj lu borom jafe-jafe daal nañ naxante moom ba lu ndaw lu ñu war a am si moom tamit ñu mun ko am si moom rek ñu dem toppatoo ko suñ njaboot. Mm. waa noonu la. waaw liggéey bi yëpp naxante la rek ba nga mun a jot li nga soxla si doomi aadama bi. Mm. loolu rek a si nekk waaye bari na jafe-jafe wax dëgg ne yàlla moom yee. Mm. waaw borom oto moom mun naa dem jëndi bagage loo xam ne ni ay am nga xaalis bu bëri daal machine mun nañ ko jëndal lu mu laajte waaye tey ku ko remonté tey suñ la waree fay tey wax dëgg ne yàlla lu ñu lay fay tan dafay tuuti torop. waaw te pare yow kenn yaa res garage bi. apprenti yaa leen di mandat dépasse bi yaa koy génne xam nga ah, garas bi yaay fay rent bi loolu dafa métti waaye su leen ne liggéey bi mu ngay dox yaa ngi am noo ko war a amee yooyu yëpp doo ko yëg waaye nag xam nga foraatu la daal xam nga ak tam gëm sa bopp la daal waaw góor daal la ngay gëm sa bopp nangoo liggéey rek waaw waaye bëri na jafe-jafe daal jafe loolu dëgg la a gëm sa bopp la kon Gambien si neneen gëm suñ boppa am kon kontaan nañ trop am si dalal boo ñu dalal lan nga wax si seen BNVIP magazine waaw li ñoo def nii lii ñun nañ ko rafetlu because ñun liggéeykat yi tamit nekkuñ di gis suñ boppa si dëkk bi te daanaka ñun ñoo dee gën a sonn si réew mi ñun liggéeykat yi lifin bi euh, xam nga liggéey suuf la daal xam nga waaw nekkul liggéey boo xam ne da ngay xëy sol yére bu set wala leneen yow si suuf bi ngay nekk xam nga nekk si coono bi lii tam baax na tamit xam nga at least tam nit ñi di gis liggéeykat yi lu ñoo daj ñu nekk si ground bi dañ dee soona daanaka luy doxal réew mi si borom métier la nekk so da ngaa gis ne ne tam ñii lu ñoo def tamit lu rafet torop la daal wax dëgg na man dama ko rafetlu daal waaw te réew mi waroon nañ si mun a gis seen boppal jàpp si ndax mu gën a mun a am doole xam nga because lii lu important si réew la waaw ñun doomi réew mi la ñun tam dañ bëgg di gis suñ bopp si réew mi xam nga waaw maa leen di jaajëfal daal xam nga di leen gërëm seen liggéey bu rafet waaw yàlla yokk leen yàlla aar leen. amiin xam nga lépp lu ngeen bugg rek yàlla na si yàlla def jàmm daal loolu rek laa leen am pour ñaan si daraja Seydina Mohamed daal. sallallahu alayhi wa sallam am su ñëwee ñu bokk ko ñu nit kontaan nañ. waa waaw jërëjëf na ko jërëjëf. ok thank you so much. maa ngi laa nuyu. Euh, di la wax nanga tudda Mamou turee ah Akaza moo waral loolu. Euh, tey waa seen BNVIP magazine ñoo ñëw am euh, si seen programme bu ñu def saa su ne am programme bi nag mu ngi tudda am di Gambia after work loolu mooy tekki mooy am di Gambia am soo wàccee am after work nag comme lu ñu si jublu mooy comme soo wàccee liggéey am lan ak lan ngay def kër. waaw léegi daal moom ah, danañ bëggal xale yi danañ julli dañ julloo xale yi ñu ñu ñu pour ma nekk ëllëg filanga réew mi ndax jàng gi daal lu am solo la kilifa gu nekk mu sa doom mu wëndu ci mbedd bi guddi xam nga da taxawaalu ne étudi bu bu bu ci nasaraan mu ci alxuraanu karim ëllëg mu ñoo jëriñ ndax xale yi moo suñu yaakaar waaw xale yi ñoo suñu yaakaar ni ji nga mbaam mi may dawal nii man driver laa boo ne akasa yi ñoom ñëpp xam nañ ma waaye nag boo gisee ma ma ko yore ma a dimbale xale yi si njàng mi pour ñu mën yokk réew mi ëllëg bu ma dem grand pass rek ma toog bàyyi lonc ama bàyyi daal ama bàyyi bugg aw ma bugg mu loolu moom ma tey ma yor mbaam mi di ko liggéeyee diguru moo sax moo tax maa ngi ko liggéey nii ma sama boppam. waa bu baax dé dégg nañ la am ah, ñu ngi rafetlu comme comme loo ñu dalal. ba pare la wax jeuf am way yeen am comme ñu nan am Touré Kounda am Touré Kounda ak Cissé Kounda yi ñoom dañ bëgg lek way so wàccee ndax bala ngay sangu ngay tëbu bol bi waaye xamna ne di nga tebu bol bi am bala ngay jema a sangoo ki yooyu noonu. sangoo bu paree. dama njëkk la laaj da ana ana xale ñu ngi estudi waaw ana ana ana rek pare na fek sangu na ba pare waaw loolu la mom dana daa ngi taxaw ba ci xalé inshallah taxaw boobu. waaw jërëjëf maa ngi ñaanal jàmm. yàlla yokk leen si seen kattan ak wér. parce que ak leen bu takkasuru. ba lii laay fi xulóosiin. parce que bu takkasuru ba lii laay fi xulóosiin maa ngi ñaanal bu baax a baax a ñaanal Adama Baro di ñaanal waa réew mi yëpp. ñu fi neex ak ñu fi doon yëpp ñoo ñaanal yàlla yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp. mbàcc ci ñun ñun xéwal gi xéwal ak barke. parce que ak karim sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf am papa jërëjëf am lu ñuy tëjee rek mooy am loo wax si seen BNVIP magasin bi comme jog naka luñ commencé di def nii am ñëw di wër di seet si am am nit ñi seen liggéeykaay di leen laajte comme after work nu ko gars yi doxalee soo yow loo si wax li ngeen def liggéey moom lu baax a baax a baax la yokkate gu rëy la ci réew mi yokkate loolu bu rëy si si ñun la ak ak waa àdduna bi ndax bi ngeen laajee ngeen dem ñoo xam ne foog ñu joxee xalaat boo xam ne ñëpp mën nañ ko jëriñu li ngeen def lu baax a baax la yalla katan na leen yalla wéru leen yàlla ubbi leen seen liggéey bi bu ngeen ci kanam yalla dàqal leen xëytaane <laughs> bi birik biti tengi boy jeri jeuf jeri jeuf ba jeri jeuf papa wa ba tay ñok yel na rek si after work bi tek leen seen baram lu ne fi la muy xewé tour bi ak sant bi maa Ansu Ansu Lo Lowe. yeah Ansu Lowe. comme nu ma ko fi waxee léegi ma bamtuwaat ko rek am seen BNVIP magasin ñoo leen amal programme bu ñooy def saa su ne am. Ah, euh, programme bi nag mu ngi tudda di Gambia after work waaw so tey moom ñu génn si ñëw di laajte comme suñ dëkkandoor yi suñ brodas si suñ am nga rek sisters yi yëpp am naka la gaay di doxalee seen after work am nga comme gambien bi su wàccee lu moo def ak yooyu noonu ak individual bi comme yow tey soo wàccee nga wax ñu xam nga rek comme after work bi noo doxalee. that's very interesting after work dafa mel ni moo gën a am solo sax si ñun because of ñun ñu day ñëw job si nii suñu working place yi suñu xasee ba ñëw suñu working place yi comme like as a workshop before ñuy demaat kër daf day nekk lately boo suñ demee woo ah, kër. si lañ dee gën a mun a am time pour ak suñ famille xam seen niit si ñu mun a gën a tekkee xam naka lañ leen war a tekkee ak lu ñu soxla ak lan lañ war a ban responsibility lañ war a def si kër gi so yooyu yëpp si after work bi la bokk foog naa ak tamit si ah, yaren bi tamit di selu ndax xale ñu ngay def lu war comme lu ñu war a demee ak seen yëf yi jàng nga ko bàyyi xel duñ dee wàcce rek daal ne dañoo relax suñ wàccee dañ dee amaat beneen woox tamit si kër bi tamit xam nga. mooy comme like euh, as ñu naa suñ family ak suñ wife ak suñ parents si tamit comme ñun ñëpp as a youth lañ naka lañoo ñoo tekkee suñ family noonu lañ euh, si si loolu lañ dee dox so foog na waaw dégg nañ dégg nañ bu baax comme loo wax. am waaye yow comme soo wàccee normali ndax am da ngay dem rek am nga njakkalante rek dem rek. tegu si booli maalo bi yooyu noonu comme say nu ma dee wax suma gars yi am nga mbokki ah, suma mbokki ah, Touré Kounda yeeg am Cissé Kounda yi ñenn ñoom ñoom suñu wàccee rek dañoo ñëw rek tëbu nekk si bool bi xam bala ñoo dem sangu sax xam nga te duñ dee jéem a xelaat sax ñu ne wàcce nañ wala xaaral ñu jëndal lii comme xam nga yu gars yi naan baaba naata baaba naata yu dew yooyu noonu xam nga so yow ndax si ñuul nga bokk nga xamante ni dañoo ñëw rek tëbu bool bi waaw ñun xam nga suñ time yi liggéey duñ dee mun a bokka suñu dee tombee time yi ñëw rek am ah, demande lekka instant comme lay ñun time yi time buñ dee wàcc daf dee fekka evening time bi la dee nekk mu si ñun suñ dee génn a kër comme suñ xale yi nii su nekkee ñun am ñun borom jaboot yi nii suñ doom yi ne ñu laajte papa lii lañ bëgga suñoo ñëw nga jëndal ñu lii so dangay ne ñun tam suñ dee wàcc straight yóbbal yooyu noonu lañ dee ñëw indil ko njaboot bi comme like lu ñu leen promise te suñu wàccee tam dinañ mën a aar kër du ñëw daay rek li si yëfi lekka bi tamit <laughs> lu ñu dee njëkk def ñëw wàcca xam naka la kër gi demee ñu toogaa famille bi waxtaan relax tuuti ba time yi reer yi kër jot bi ko ñun suñ time yi lekka kër moom moo si reer time reer la dee nekkam waaw ñu reerandoor ak famille bi yëpp amul ko nga wàcca ni ñu tibal la añ ak yooyu noonu because of suñ time yi wàcca def dee tombee evening ñu yi time yi waaw ok um, thank you so much um, ba tey ñoo yéen la rek si after work bi um, waaye comme ñu ngi lay wax daal maa la laaj yow loo wax si um, seen BNVIP magazine bi comme noo ko gisee. because doomi réew mi ñoo ko fi def am nga rek uh, nekku ne comme dañ ko def pour giste wala pour wanewu ak yooyu noonu waaye ñu ngi ko xam nga taxawal pour doomi réew mi xam nga mun a am fuñ jàpp a liggéey. xam nga because of dina wàññi lu bëri tamit because of booy lu ñooy toog am nga di campé comme yow tey yaa ngi fi toog bu ma dugga si benn nit laa gis ko mu laa jàppale am nga te booy léegi ñuy toog dafa bëri soo seen BNVIP magasin tamit ñëw taxaw pour tamit support si beneen side bi because soo ko xoolee booy yëpp dañuy toog naan am damaa tukki damaa def nii wala government bi liggéeyuñ wala defuñ nii ak nii ak nii trying xam nga pour jël step pour développer yaa ngi gis so yow loo wax si seen BNVIP magazine ok man lu ma see wax moom dafa xaw a bari tuuti xam naa ne programme bi dafa gaata waaye su nekkoon ne amoon naa time sax nañ doon yokka programme bi because of man si idea boobu am naa si idea yu bari bari government bi dañoo liggéey waaye ñun ndaw ñi tam dañ am lu ñoo liggéey ñun tamit because of fu mu nekka nii ñun lu ñoo liggéey nii yëpp nekkul ne si loxo government bi la jógee dafa jógee ko si ñun ndaw yi kese ñu ñoo mun a développe suñu boppa ñu ñoo mun a nangoo liggéey suñ nangoo liggéey rek kenn ku nekk dina liggéey te kenn du toog soo bëggee liggéey doo toog ngeen ne liggéey amut no parce que liggéey yaa ngi fi bari liggéey yaa gën bari ñu toog right now ñu caatee bugga lu yomba rek um, soo déggee gaa di wax ne napse bi wala bugg a tukki rek foog ne foofu laat ku munut a ñefe wala ku nangut a ñefe ñeme coono mooy mooy xelaat loolu waaye soo amee ne man su ma dégga foog ma juddu liggéey te liggéey boobu moo maa dimbale te mooy dimbale tam suma réew mooy yóbbu suma réew kanam nga xam loolu njëkka di nga nangoo liggéey waaye man ci lu ma yéene mooy bugguma comme benn yuut man wala koo xam ne benn xale boo xam ne jàngut demut de xam nga defut benn euh, façon yi jànga muy jànga Quran wala jànga school dem ah, English school yi xam nga bugga naa na ku nekk mu am lu mu téye suy métier sooy dem school wala nga dem daara sax wala sooy dem métier sax na am time boo xam ne da nga dem daara wala nga dem school ñëw boole ko métier bi so loolu moo ñëw euh, may loo xam ne moo ñoo yóbbu si kanam ëllëg moo ñoo indil développement mooy tax ba suñ ndaw ñi tam mun a am xam-xam pour ëllëg ñoom tam ñu mun a demal suñ boppa duñ yaakaar keneen kuy jóge koo feneen di ñëw ñu koo fay ngir lan xam-xam bi mu amee soo ñun tamit mun nañoo jàng lu nekk fii nii suñ góor góorloo lan nga advice am ndaw yi si biti. ak ngi leen a dara mooy nañ nangoo liggéey gën a doole ah, góom-góom bi am yar respectante suñ defee lolu dinañ gëna mëna dem kanam ba paré ñu dégga suñ wahi wajuri tamit bu baaxa baaxa baax wajur mom su nekké comme lay ndaw nga rek déglu sa wahi wajur waaw sa wajur dal moy sa force fo xamné ni fo nga mëna jëlé lu nekk so jëlé lolu so gëné ci biti rek wajur du la digal dara lo xamné nak mom moom du yaaxala du rek la la digal suñ déggé lolu force ñu soga gëna soga jël yenen responsibility nga xamné ne yi dafa melni loolu ñu advice ci biir kër gi rek ñu jup liggéey. am tànk kontaan nañ bu baax a baax si dalal boo ñu dalal am di la wax thank you so much ok kontaan nañ. waa gis ngeen ko am ba tey ñu ngi si after work bi. waaye tey fii lañ ko emale am yéen ñëpp gis ngeen am ah, tey ñu leen leen loon ci after work bi dégg ngeen lu gaay wax am nga ñii dañuy wàcc dem tëbu bool bi ñii dañuy wàcc seet ci xale yi ñii dañuy wàcc am nga di seet xale yi comme daal naka lañ leen yaree si kër gi ndax duñ fay nekk suba ba ngoon am yëpp si si after work bi la muy xew am tey fii nag la ñuy amal programme bi am di dem ba next week ok ko leen si doon àndat mooy am Kiss Full House comme lu ma wax rek yu nekk fii la muy xewee am si seen BNPIP magasin